tànk yi ñu fi indi tànk yu yóbbu jullit ci jullitu moroomam la waaye tànk yu yóbbu sénégalais ci sénégalu moroom la tànku njaal la tànku massaw la président de la république bi mu déggee lii am dafa mobiliser gouvernement bi yëpp rawatina nag ministère de l'intérieur ak ay services am mun leen lépp loo xam ne dans l'urgence dañ ko fi war a def ngir ñu defal ñooñu noonu ngir ñu accompagner famille ñooñu nañ ci def suñu kémt lay kattan waaye su loolu jàllee tamit day baax yéen ñi nga xam ne yéen laa dénk solidarité nationale ngeen yegg fu ngeen fa yeggee ngeen mën a jot li suñu njàll moo tax mu wax ñun nañu def délégation ci délégation bi nag maa ngi ci ànd ak sama collègue le ministre Dame Diop te yàlla def ko tamit mu nekk seen doom mu nekk ku ngeen xàmme fii ci biir Touba e, ni ma wax léegi sëñ Bassirou abdu Khadre bi nga xam ne mooy porte parole xalif général des Mourides dama ne ko président Macky Sall def ni ci réewum Sénégal képp ku fi am tiis képp ku fi am jafe-jafe ak bu mu mën di doon su sagoom moom mooy mu yegg si ci yow jox la loxo massawu la waaye xamal la tamit mu ngi sawet guddi mu ngi sawet bëccëg comme que nag yàlla mënul ko mu mën a def loolu yépp ci biir réew mi moo tax mu yónni ñun ay ndawam ñu fekk yeneen ndawam ci biir Touba pour ñu yegg si fii yeggal njaalam te di leen wax ne ni ñooñu noonu jóge fii yàlla na leen yàlla xare àjjana ci barkeb rasul alayhi salaatu wasalaam foofu mu jëm foofu ñu jëm yàlla na leen gënal fii nga xam ne moom lañ jóge et monsieur le maire Abdoulahat Ka wax na ko fi léegi yaakaar nag am na ci parce que ñu nekkoon ci yoon ci yoon bi kenn ku nekk ñu xam ne na mu mel ñun ñëpp am nañ ci yaakaar yàlla bu yàlla tas yaakaar euh, ñi ci génn àdduna euh, ndax am na ay ndaw am na ay mag am na ay jigéen am na ay góor waaye foofu ñu jëm yàlla na leen gënal fii ñu jóge njaboot bi ñu bàyyi fii tamit yàlla na ci yàlla teg loxoom lépp loo xam ne tamit accompagnement état la ak jàppale état incha allahu taala duñ ci génn duñ ci duñ ci sonn moo tax président de la jël enveloppe buy tolloog loolu xëy na ma bàyyi ko sax après gouverneur mën na koo xamal mbooloo mi waaye jël na enveloppe bu am solo daal mu ne na ko teg ci loxol ñi nga xam ne ñoom la seeni eh, seen seen njaboot dellu ci ci accident boobu noonu pour ñu jàppalante ko ci pour ñu mën cee euh, jaf jaf euh, jàpp jàppalante fan yi nga xam ne fan yu xaw a tar la dañu recevoir ay gan di ñu recevoir ay jaar ci gàttal li ñu indi fii mooy ñaanal ñooñu li ñu indi foofu mooy ñaanal aussi euh, ki nga xam ne moom mooy le xalif général des mourides nga xam ne ñëpp tey njabootam lañu di ñaanal aussi président Macky Sall mi nga xam ne tey moom moo njaboote réew mi yëpp. yàlla may ko fu mu toll di mën di bàyyi xel yàlla may ko fu mu mën fu mu toll aussi di mën di jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko soxla. Eh, kon nag yéen bu ngeen ñëwee tey xam ne yéen a réew mi ci jabootu réew mi lañ bokk ngeen def délégation bu mag ñëw yëkkati itam lii ngeen yëkkati eh, jox ko ñi nga xam ne dañu faatule ak ñi nga xam ne dañu am ay blessé duñu mën a def lu may sant leen gërëm leen. ndax yëf yi lu ci waay def rek soxna su baax si ci suñu ginnaaw di soxna maam isa nga ko defal lay firndeel wala mooy sëñ Muntaxa baat bi mu njëkk a wax mooy soxna si nee ko bu ci dara diis ci moom ndax lu ci waroon a diis rek maa ko yanu loola ba ko sëriñ bi waxee rek booba la lépp oyof famille itam bi mu joxee ndigal ci ne ñu leen denc yemale leen ñoom ñëpp bi ma leen ko waxee dañ ci ànd ak ñun booba ba léegi itam lépp lu ñu ciy def lu ci sëñ bi deful rek soxna su baax si moo ko ci def waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy ñooy famille yi dañ koo jébbal lépp démb sax bi commissaire ñëwee dañ ñoo woo ñu ñëw ñu ne ñoom amuñ benn baat seen baat mooy baatu soxna si taxawaayu soxna si mooy seen taxawaay. ndax mbir mi ci kawam la daal. yéen itam ñu ngi leen di jaale ndax doomi réew mi ñoo wàcc liggéey te yéen a ngànk réew mi kon ñu ngi leen di jaale ci turu soxna si yéen itam di leen masawu itam ci coono yi di ziar nag dëkkandoo yi daayira maam jaare yi. ñëpp ñoo jàpp mbir mi muy seen mbir ba mu egsi ci ñun di sant nag famille yi ndax ñoom itam di ñu bàyyi lépp ba pare itam dañoo nangu dogalu yàlla te soo nanguwut li yàlla dogal da ngay sonn kon ñun itam li yàlla dogal neex nañu ñu ngi koy sant yàlla ndax sëriñ taxaa bu muy jeexal wax ja dane ku bàyyi ko ci maam jaara tàbbi ci loxo sëñ tubaa war nañu am ci ñoom yaakaar mm. te poroxaan lañ bàyyeekoo ñu jébbal leen suñ borom ci armée tubaa ci ndigalu Cheikh Mamadou Muntaxa